caméra bi ñu jéem a jël réaction quelques doyens kilifa ñu ngi lay nuyu. maa ngi jël salaamaaleykum. waaw mais maa ngi leen ñu ngi gis la nga ñëw indi lii mooy mën a fay di ko ëppal suñu lan moo gën a Sall may mën a nduur démb macha allah maa ngi nuyu de passage di nuyu waa Wakam di naqarlu métit bi ak waa Wakam parce que boo seetee démb si guddi ñu ngi woon fii ak may mën a nduur fay may mën a démb maa moom ñoom bu jëf foo ñoo doon kaf di reetaan parce que saa yi ñu àndee gën a tourne ñooy kaf ànd président Macky Sall boo seetee d'ailleurs démb moom mi ngi woon fii comme naan émission ak Farba Ngom ñun ñoo ko def ba 3 heures du matin ak asiko yeeg yëpp tegu ko bi mu paree si la tàggatoo ñibbi bi mu tàggatoo ñibbi lii si la ko dal lii nag kenn defu ko ku dul waa opposition bi man Gaynde Macky maay wax. kon loolu rek laa xamal leneen. ñu ñu ñu bañ a pointer du doigt kenn wax ne li nga xam ne moom moo moom moo dal sa ñëpp la concerné muy Sénégal yëpp ba mu wër na papa ñoo jël mërëm bi. dénoncer cette menace-là, ces violences-là. Parce que pour nous, ce sont les forces de défense et de sécurité uniquement. Non, alors que ce n'est pas le cas. Depuis très longtemps, nous recevons des menaces quand nous avons ou bien quand nous donnons des informations qui sont exactes mais qui ne sont pas favorables à un parti politique. Les militants nous agressent, que ce on l'opposition ou bien le pouvoir. Babacar Fall récemment a fait un commentaire, il a été attaqué. Avant Babacar Fall également, d'autres personnes on fait pareil et elles ont été attaquées. Donc on ne peut pas parler de contexte. Parler de contexte euh, euh, revient à donner une explication à cet acte barbare, ignoble qui a été perpétré par une personne non encore identifiée. waaw lu ma doon wax ci wolof rek mooy li xew nii mun euh, mënuñu ko tuddee ñun benn agression bu simple parce que c'est vrai que ni lu xew su xamee da ngay xaar ba am ay enquête lan lay joxe mais duñu dugg si enquête bi lan la wax parce que xamaguñu enquête bi lan la joxee gum mais ñun mun nañu wax ni du agression simple parce que tout simplement agresseur bu ñëwee fekk victime su defee li muy def ba pare dina jël lépp loo xam ne victime bi daf ko yoroon defe naan su fekkee ni am na lu mu jël ci Maymuna itam gis ngeen ni Maymuna télé benn ci téléphone la defee vidéo bi saagam mi ngeek moom Euh, caabeem eh, otoom gis ngeen ko si suuf gis ngeen itam otoom mi ngi foofu noonu buntu këram donc nit ki nga xam ne njort nañ ni daf ko xaaroon waajoon lii ngir def ko lii nag daanaka mun nañu bañ a bett ñun les acteurs des médias yi nga xam ne boobu ba tey ñu ngi yuuxu nag kenn faalawuñu parce que bu yàggul dara song nañ fa Makumba Bey suñu naataango la bu nekk RFM otoom la ñu taal ba mu nekk ab pënd si buntu RFM su fekkoon mi ngi si biir otoom bi tey jile daanaka kenn waxatu ko avant ou bien après Macoumba Bey beneen reporter bu TFM dem na place de la nation ñu song ko Amadou Sabar Ba dem na buntu euh, Walfadjri ñu song ko lu tax ñooñu ñu leen di song parce que médias yi ñu liggéeyee joxe nañ xibaar bu nga xam ne xibaar bu baax la. waaye àndul peut-être ak benn parti politique bu pouvoir wala opposition moo tax ñu leen di song Babacar Fall bu yàggul dara def benn commentaire ñu daal di koy song cas bu mujj Absa Anne mii taxaw sama wet la ay takk der ñu ñu identifié ñoom ñoo ko bundu xatal ñu def plainte ñun ànd ak moom si xeex boobu noonu jëlal ko avocat ba fi may wax ak yow enquête boobu noonu liñ si xaar amagu si donc lii xew nii donc bettuñu c'est parce que dañoo jàpp ni Sénégal mun nga fi bunduxatal xatal doomu aadama mun nga fi bundu xatal taskatu xibaar te du mujjee fenn looloo waral ñuy def lu ni mel di ko continuer laataa nag ñuy xaar lan la enquête bi du joxe parce que bëgguñu jiitu paaka si mbar bi mais mooy dañu koy ñaawlu vigoureusement di alerter nag alerte kilifa yi réew mi parce que lii buñ ko bàyyee defuñu enquête bu si war mu gaaw itam parce que tey Sénégal ñëpp xam nañ foo jaar dina am ay caméra de surveillance su loolu amul daanaka indi wuñu li nga xam ne moom moo def lu nu mel daanaka day continuer beneen bu mooy ñu ñu mobiliser wu les acteurs des média bu ñu jàppee ne ab sa aan Seneweb la ne bunu xatal nañ ko duma ma dem su woote ba parce que Seneweb la ne topp concurrence bi ñu ngi nax suñu bopp bu ñu jàppee ni Maimouna Ndour Faye 7TV la laalul Walf laalul RTS laalul Sen TV ñi ngi nax suñu bopp ñun ñoo war a mobiliser parce que liberté d'expression dañ kaa yàgg a wax jamonoy Pape Alé Niang wax nañ ko wax ko jamonoy Pape Ndiaye wax ko keneen ak keneen la liberté d'expression d'opinion ak des média euh, liberté de presse fii si biir Sénégal c'est non négociable ak fu mu mënta jóge nag menace bi on va faire face su fekkoon ne bëgg-bëgg bi mooy noppiloo Maimouna Ndour Faye ba faw du parce que même bu doon safaan gi dafa am y a d'autres Maïmouna Ndour Faye dans les rédactions elles sont là ou bien même mun naa wax nous sommes là parce que góor ak jigéen ñëpp ay Maïmouna Ndour Faye lañ ci rédaction yi à l'intérieur du pays ñoo taxaw ni donc menace bi ak fu mu mënta jóge dafa naa ne ñun suñu rol nit ñu comprendre ñu ba tey ñun wax nañ leen ko notre rôle n'est pas d'être pour ou contre mais du joxe xibaar yi di ko jox askan wi la loolu il faut que nit ñu comprendre na waruñu nag lu neex diw ak lu neex Masamba donc xibaar la ñuy wër vérifier ko su dee lu baax la ñu joxe ko segg ko comme ni ñu ko war a segee comme ni ñu ko jàngalee si école yi ñu jógee yëpp donc ñu ngi koy ñaawlu di leen ñaan yéen ñëpp ngeen resté mobilisé wu. Marème euh, di rafetlu li nga baax yi nga xam bu baax baax yi nga ay kàddoom. am solo voilà na ñëpp ñëw ñu ñëw nii waa na ñëpp ñëw comme ça ñu mën a mën a tàmbali maa ngi gis derrière euh, PMS ki nekk derrière bu fekkee mën nañu ñëw maa ngi gis ñu yor caméraman na leen ay caméraman ñu ñëw nii ñu tàmbali nekk ci kaw yépp s'il vous plaît ñi nekk ci kaw yëpp nañu wàcc s'il vous plaît ñëw fii ci kanam su ko defee ñu commencé cérémonie bi. s'il vous plaît gars yi su ñu mënee may benn moment voilà ñu mën ñu mën a tàmbali jotaay bi alors on donne la parole à Ibrahima Lissa ñu tàmbali jotaay bi. mais gars il faut qu'on s'organise un peu comme ça on va pouvoir démarrer donc il faut que vous alliez de l'autre

jërëjëf.